monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ñu ngi yëkkati nuyoo bu sell te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu te mooy jàmm jàmmi yàlla ak yërmaaneem ak barkam yoon yàlla sotti ko ci sa kaw te bu ko sottee ci sa kaw daf koy sotti ci réew mi yëpp ñu ngi nuyu mboolem kilifaay diine yi ndax bis bi ñoo ko moom waaye ñi ngi nuyu monsieur le ministre de l' éducation nationale waaye ñu ngi nuyu inspecteur de daara monsieur Babacar Samb ñu ngi nuyu mbooleem daara ji di nuyu mbooleem gan yi fi nekk ñi ngi wax ci turu conseil consultatif des associations d'école coranique du Sénégal te mooy majlisu shura lil jamiyati wal madaris al quraniya du Sénégal comme journée nationale des daara ñun dañ ko jàppee mu mel ni liñ naan premier mai fête de travail fête du travail kon bis bi suñu fête la premier mai liggéeykat yi dañuy daje président de la république ci palais ba di wax seen doléance kon tey dañ fi taxaw pour wax suñu doléance gannaaw bu ñu la santé gërëm la parce que réalisation yi bari na document bi tënk nañ ci ñaar fukki point ak benn yoo xam ne ñu ne yaa ko def ci dara ji lépp ñun traduire nañ ko en arabe pour mbokk yëpp ñi nga xam ne amuñu ak ci français bi ñi mën a xam li président Macky Sall def ci dara ji kon su ñëwee ci suñu doléance dañuy wax ne fii ñu nekk tey muy arena di barab bu taaru barab bu jekk waaye euh, stade de basket la nga génn tuuti yaa ngi am euh, stade président Abdoulaye Wade pour football jiitu woon na ko président stade Léopold Sédar Senghor yaakaar naa booy dem Dakar bala ngaa dugg am na beneen euh, barab bu mel nii pour lamb ji yooyu yëpp am na solo waaye daara ji itam dafa soxla centre international de Saint-Coran loolu la ñuy demander pour nga defal ñu ko pour beneen yoon journée nationale pour beneen yoon grand prix de chef de l'État suñ koy organiser ñu organisé ko ci place boobu nga xam ne alquran moo ko moom xam ne ay jàkk dafay nekk suñ bëggee julli dañuy julli te duñ puus benn ban loolu ñu ngi koy ñaan daara ji xëyoo na ko te soxla na ko te war na koo am monsieur le président de la république lire nañ ci document bi que ne am na cinq cent sëriñ daara yoo xam ne ni yaa ngi am une recruter leen dugal leen ci fonction publique mais ñi ngi wax ne daara secteur privé la te lu ñu li ñu gis état bi di ko jëflante ak secteur privé yi mooy dem fekk leen fañ nekk mu dooleel leen financé leen jox leen estimation pour ñu gën a yaatal gën a dëgëral gën a sellal liggéey bi kon loolu la ñuy sakku ci état bi mu def ko ci daara ji ñëw ci daara ji accompagner ko financé ko jox ko estimation mu mën a joxe résultat yuy raw yim joxe tey ba nga mën a organiser grand prix du chef de l'État loolu ñu ngi koy ñaan war nañu ko am parce que ñu jëlee daara ji di ko yóbbu ci fonction publique dafa mel ni dañ ko bugg jëlee ci privé yóbbu ko ci fonction publique ci waxtu woo xam ne nii ñi ngi privatiser lépp ci réew mi kon li gën a dal suñ xel mooy fekk si ñu fi nekk subventionné ñu dimbale ñu soutenir ñu ñu gën a mën a sellal gën a mën a yaatal liggéey bi monsieur le président de la république waaw ah, mu ne temps bi jeex na may ñu tuuti rek maanaam soxla nañ ci gàttal soxla nañ ci gàttal comme ni ñuy waxee eh, fii daare fii eh, cité cité nangam cité nangam cité nangam cité daara ji site daara ji foo xam ne sëriñ daara yi ñoom itam dañ fay am cët dëkkoo ko ñu ngi gërëm di sant salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu